wa rahmatullahi taala wa bokki mbokk ci wat nañ seen télévision bi nga xamanteni moy Mouride TV waaye ci naafile yi nga xam baxo nañ ko ànd ak yeen ci wèr wi nga xamanteni moy ramadanil mubarak waaye ñu ko jukkee ci téereb Sëriñ Suhaybu bobu radiyallahu an muni guddik ñaar fukel ga ak ben ku ca julli ñent rak'a rak'a bu nek ginnaaw fatiha ben yoon yaa ngi koy jàng qul huwa allahu ñaar fukki yoon kon mbokk yi naafila yi guddik tay gi mu ngi doon ñeenti rakaa rakaa bu nekk ginnaaw fatiha yaa ngi ciy jàng qul huwa allahu ñaar fukki yoon kon mbokk yi ñu jox leen dig da insha allahu taala ci guddi gi nga xamante ne moo nekk suñu kanam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa